ANAF di kuréel gi ëmb jigéenu ASP yi ñoom ñi féete yi amaloon nañu ab tàggatu ci ni ñuy soppalee suñu ñamu dëkk bi yéen a ko waral yéen ko liggéey depuis quatre jours yéen a ngi fii di xëy di gontu fi ngeen di toog ba huit ba vingt une toog fii di liggéey liggéey bi kon liggéey bi ñor na leen bëgg a ci seen bopp ñor na leen bëgg demal seen bopp ñor na leen moo tax ñu leen ci félicité yéen ñi ngeen xamante ni yëpp da a participé ñu ngi leen ciy euh, remercier bu baax a baax a baax. moom mi sax mu ngi xamle ne ANAF yi nekk ci biir Sénégal yépp Bambey làbbali na karawaas ba. xamante ni jigéen ñi nekk ASP ñoo ko def ci national la nekk amical bi seen national léegi lii nag moo nekk cellule Bambey waa Bambey ñoo liggéey lii Dakar am na fa am na Thiès am na fépp mais waa Bambey vraiment yël nañu pay ndax lii def. lii ñu def waa Bambey ndam la ñëpp a ngi may woo ci suba ba tey waa Dakar ñëpp di ma woo di ma félicité ndax waa Bambey li ñu def ndax lii ñu def nii gisaguma ko ko fi defagum ci waa ANAF yëpp ANAFU kii yëpp ngi leen di félicité bu baax a baax a bi national mi ngi félicité ANAFU Bambey di leen di leen tàggat di leen ñaax bu baax ngir bu ñu fi jógee uti lu ñu def ngelawaay diplôme bi leen jox bu leen ko téye seen néeg yi liggéey leen ci même su fekkee da ngay teg taabal sa buntu kër di def ay jus di jaay di def ay fataya di jaay donc mën na la apporter quelque chose donc di lancer benn appel aussi aux les autorités communales donc ñu xam ne actuellement jigéen yi ñoom ñoo nekk le socle de développement pour jàppale jigéen rek je pense jàppale nga ñëpp. maire bu Bambey mel ni ku dégg wax joojulee ne lii du fi yem. waaw bi damay ñaan yàlla bu ëllëgee yeneen formation topp ci mu gën a mu gën a parce que kat ASP yi njabootu ASP yi organisé yi gis nañu baax seen liggéey ci dëkk bi. bés booba nag li muy neex neex ñu jot seeni lijaasa rongoñ dal na fa sa dënd. ndax dañ ca doon fàttaliku kenn ci ñoom ñu naan ko Mbaye ak Diop mu dëddu leen. kër ñu jëlee ko kër yóbbu ko kër wutee ngi ñun ci ñaari kër yi tey Mbaye ak tëdd ñu xam ne yàlla mooy borom jàmm. Mbaye ñu ngi lay ñaanal. de venir m'accompagner dans ma solitude au bureau pendant que je revenais seul congé me pose en paix Mbaye que Firdawsi soit ta demeure éternelle. amiin. loolu Mbaye yàlla dimbali woon ko mu amoon ci xereñte loolu am ci expérience doon jigéen goo xam ne jigéen ku tàllal loxo bàyyi Mbaye bëgg liggéey bi gëm ko gëm goo xam ne nii dama naan Bambey moo ñàkk ndax ñun bu ñu nekkee ci dëkk bi war ko defar am ku mel ni moom kuy défendre les causes nobles yenn yu ci bari yoo xam ne nii yoon da koy tere mu dox ci ni mu daan doxee am ci expérience am ci intelligence boo xam ne nii Mbaye foo ko yóbbuwoon Sénégal mun na liggéey liggéey boobu parce que amoon na ci expérience waaw loolu lañ koy jooyee waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm yàlla suturaal ko fa mu nekk. nekkoon na ku àndoon ak nit ñi nekkoon na ku disponible nekkoon na ku baax nekkoon na ku ay bokkam gërëm parce que kat fekkoon bokku tam sa ay bokkam gërëm li xaw fee keroog kenn du ko gis. yàlla euh, suuf oyof ci koom lu baax la fi liggéey loolu lañ ko xamal xamaluñ ko dara lu ñaaw. Mbayang day reetaan loo wax moom mu reetaan sëgg dëgg fa yàlla ñu ngi koy jaale waa këram bi yëpp. ak di ko ñaanal suñu borom ko ñaanal yàlla yàlla xale ko àjjana. leer na ma ni su fekk leer ma ne ñu góor ñi ñu góor ñi dinañ tuddee Mbayang doom leer ma yéen jigéen ñi. su ngeen amoon doom te man koo ñaan seen jëkkër mu may leen tur wa di ngeen ko tuddee mbayang ndax mbayang du dul génn seen xel du génn seen xol kon nag noo ngi ñaan ci barke Seydina Muhammad alayhi salaam seen ànd bi ngeen àndoon te yàlla rek ak yonent bi tax yàlla moom jeexalul ànd bi kii di ko war a jël jël ko yéen nag ni ngeen di jokkee ànd bi seen digganteeg moom kenn du leen ko wax ndax di ngeen ko fàttali. sëñ Babacar Ka yor kàddu njabootu Mbayang Diop moom de lii ngeen xam ne di ngeen ko bokkoon ak moom ba génn ci xelam def def ci association mel nii ngeen def ci formation ñeenti fan di ko di ko di di wone li ngeen liggéey di tëj formation bi jël bés bi ak ni mu dee ngeen tuddee ko mbay waxuma la dara mais discours yi ngeen fi jàng doomu doy na sëkk doy na sëkk maanaam soxna si jëkk a wax jooyloo na ñëpp soxna ma ma ma ma ma ma Guèye bi tamit jooyloo na ñëpp. bi may laata wax ki doon jël kàddu yi di wax jooyloo na ñëpp kon leer nañu ne mbay di da leen ko woon seenam xel rek yem ci mais leen ko def seenam xel ba pare def ko seenam xol. ndaje ma amee woon ci mairie Bambey ñoom ñi de tàggatu nañ ñeenti fan dem ba defar seeni ñam yu baax di ko wan askan wi nga xam ne ñoom ñoo fa teewoon li di wane ne ñoom ñi war nañoo mën a jot seeni lijaasa yi nga xam ne mooy tax ñu mën a demal seen bopp mën a taaj seeni taabal wala seeni boutique di defar di jaay.